aywa de quoi est-il le nom euh, tey dañuy des ci ndakaaru dem nag bërëb boo xam ne mi ngi ci capital bi mais euh, sori na euh, centre ville bi ndax digganteem ëpp na ñeent fukki kilomètre ak juróom wala mu toll ko bërëb la boo xam ne liñ koy tudd bari na am na taarix waaye itam am na taarix ci fànn bu ne moo xam wàllu politique ak éducation duñ ci sori Abdoulaye Diop maa ngi lay nuyu. waaw ñi ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne aussi ñi ngi ci plateau bi tey nag ñi ngi ci beneen dëkk euh, ci Ndakaaru muy kotaan Sébikotane Sébikotane euh, ñu bëri dinañ ko dégg tur bi lan lay firi euh, moo tax tey ñu ñëw doxantu dañuy laaj rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk jëm leen a laaj ba xam salaamaaleykum. maaleykum salaam waxal ak kii. ginnaaw dañ doon laajte turu Sébikotane lañ doon laaj ba xam xam nga li muy firi. non je ne pas. waxal ak ñu ngi fekk élève yi ñoom tamit eh, ñu jàng ba pare soxna si na dem man déggu olof bu baax de. déggu olof waaw Sébikotane xamoo lu muy firi. man déggu olof. xamoo ko xam naa dañuy dem eh, ci kanam rek mu laajte ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu wax ñu Sébikotane lu muy firi. salaamaaleykum. wa salaam. grand ça va. ça ah, dañ doon laajte ndax xam ngeen Sébikotane tur bi lu muy firi. Sébikotane <laughs> man dëkk ma fi nag Jamiñay laa dëkk rek xam ngeen Sébikotane lu muy tudd donc xam naa dañuy dugg ci biir rek salaamaaleykum grand. maaleykum salaam. ça va dañ laajte ndax xam ngeen turu Sébikotane lu muy firi. Sébikotane lu muy firi. ah boobu nag moom xaw ma ko boobu moom xaw ma ko. fi nga dëkk. waaw fii dëkk fii laa fi nga waaw. xam naa dañuy laajte euh, rek borom clando salaamaaleykum grand. maaleykum salaam. ça va na ngeen def. ñu fi rek. dañ la fekk Sébikotane yaa ngi ci wàllu clando bi. waaw ñu bëggoon laaj ndax xam nga turu Sébikotane lu muy firi. turu Sébikotane. turu Sébikotane li ma si jàpp bëriwul de parce que man damaa jógee euh, kële Pikine ma ñëw fii waaw. kon xam naa ñi ngi koy ñi sant bu baax. ginnaaw ba ñu laajee askan wi ñu wax ñu euh, Sébikotane lañ lay firi dañuy dem rek laaj ki nga xam ni moom mooy ndey ji réew euh, di ki nga xam ne tey euh, xam na li nga xam ne moom mooy cosaanu dëkk bi ñu ngi ko fekk mu toog salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi la fekk nga toog boo ñu mënoon présenté wu rek nga wax ñu tur waaw man la Serigne Cheikh Mamadou Moustapha Seydil Jamil le grand ndey ji réew Sébikotane président collectivité Safen du Sénégal. Euh, tey dañu ñëwoon doon gëstu turu Sébikotane lan mooy lan lay firi boo ñu ci mënoon baaxee rek. voilà Sébikotane dafa am euh, ñaari ci maanaam xutaan. Mm-hmm. dafa am fu ñu daan wax xutaan mooy ci biir ne le tuuti. Mm-hmm. foofu xutaan mooy fi ñu daan fooye suñu mm-hmm. daan dem ba nga xame ni dugub yi ñor na. lekk nañu wesuur di bori ji foofu la ñu daan xuuto xaada saafeen xuuto xaada lay wa fa ñuy jaayante affaire doole loolu nag kutaan foofu mooy turam mais li nga xame ne mooy sëb sëb ñebbe la ñebbe ba ñebbe yi dañu daan daje foofu suñu leen yóbboo tubaab yi xool ñebe yi suñu xoolee ñebe sebi kotaan dafa daan gën a rafet ñu ne bii ban euh, seb la ñu ne bii bu seb la seb sebu putaan tubaab yi nag boole ñaari tur yi seb putaan moo indi tur sebi kotaan ñebe yi ak xuuto xaada loolu moo indi tur sebi kotaan ndax ñu wax ni turu turu séeréer la turu séeréer la hutaan huuto haaɗa ndax mën nga ñu wax aussi kan moo ko fonde kan moo ko sanc ki sanc Sébikotane mu ngi tudda Lamane Dieng Ciss 1736 mu ànd fi ak ay waajuram ak ay mbokkam ñoom ñoo sanc Sébikotane kon ñu ngi koy jaajëfal Serigne Moustapha si Djamil euh, bi nga xam ne moom moo nekk ndey ji réew mu leeral ñu rek li nga xam ne moom mooy turu Sébikotane fi mu jugee kon xam naa dañ koy jaajëfal di ko sant di leen jaajëfal yéen aussi ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan di leen jox dig daje ba beneen incha allah. merci beaucoup Abdoulaye Diop beneen incha allah ci beneen ngox Marcel rapidement euh, euh, Sébikotane ak ndey ji réew li mu ci indi ci ay explication bees suñu euh, luñu lu ñu jàngati euh, mm-hmm. ñuy fàttali rek d'abord dafa rattaché woon grande commune bi nga xamante ne moom mooy Rufisque Bargny mm-hmm. après ñu daal di koy euh, rattaché commune u ci boppam mm-hmm. mu daal di devenir moom Sébikotane en benn communauté rurale c'est-à-dire indépendante autonome collectivité locale bu autonome ba pare fonctionnelle nekkaale une commune à part entière gannaaw ba ñu defee réforme décentralisation atum donc à partir de Sébikotane je pense que ak ay euh, localités yu mel ni Ndionène euh, Pouyen ak tamit Mbir Jam balaa ngaa yegg kilomètre cinquante donc c'est sur la même euh, sur la même lignée. très bien invité.